mu mel ne jafe-jafe dëkk bi nga xam ne saa su ne moom la dëkk bi di dund ci lu dul màggal jafe-jafe yooyu mooy continuer di gën a metti su màggal gi ñëwee kon mu mel ne saafara jafe-jafe yi balaa màggal mooy waajal màggal gi ci euh, euh, gàllankoor yooyu loolu nag yàlla def na ñu ngi ci ànd ak ay nit jafe-jafe yi lu ci gënoon na ràññiku bokk na ci ndox bokk na ci sécurité bokk na ci électricité bokk na ci wér-gu-yaram bokk na ci bokk na ci yu baree baree bari yu ñu munta lim waaye ñuy wax rek ne secteur yooyu benn bu ci ne am nañ ci ay collab ak ñoom collab ci ñu ko yor ay collaboration bu mat sëkk boo xam ne jàpp nañ ni suñ ko wéyalee ba màggal gi ñëw yàlla mën naa def lu bari dana woyof yàlla mën naa def it njàqare yu bari suñ borom teggil ko ah sëñ Basu nag wax ne mi ngi rafet njort bu baax te yaakaar rek ne taxawaayu daaw yi ci contexte bi danu jàngal ren ndax ñi ngi wax troisième vague ci pandémie bi am troisième vague bi bu fekkente ne ñaanuñu yàlla sax mu wéy ba boobu waaye nag am nañ expérience bu ndaw ci par rapport ak daaw expérience boobu nag defe naa suñu gënee yokk sunu pas-pas yokk sunu moyen waaye gën a dëgëral suñu jokkoo ak jokkale bi jokkalante bi defe nañ ni mën naa euh, gën a euh, yokk résultat yi ñu amoon daaw te résultat yi ñu amoon daaw nag ñëpp gis nañ ko àdduna bépp xam nañ ko même presse internationale bi sax wax na ko kon loolu lu wér la lu tegu ci xam-xam la du lu ñuy wax loolu nag tax na li fekk ñëwagut xamugunu nu ñu ciy doxee ak lan moo ci doon ndigal lay wéy waaye nag sunu warteef ci ndigalu sëriñ bi ci njiitul sëriñ Bas mooy xam nañ ne màggal gi dina ñëw incha allah xam nañ ni ne mu tartar fekk ay nit waaye xam nañ ni ay nit a koy waajal ci ñun ñoo ko war a waajal kon dañ ko waajal nañ ko daan waajale incha allah di sàkku it jullit yëpp ñaan di sàkku it yëpp ñaan waaye rawatina murid yi te ñaan moom mooy sunu lépp moom lañu am ñaan it mën na lu ne la amoon daaw kenn mësu ko foog lu ko raw nag ci jàmm ak ci ndam yàlla nañu ko yàlla defal ci dara yi Sëriñ Tuuba ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp